may remercier les responsables de Hann démb lañ leen ko wax nee leen dañ fiy ñëw tey première dame dafay ñëw tey ñu def mobilisation bu day nii et dañ leen a contraindre ci ay délai wax leen ni bu kenn jógee feneen première dame ñi mu soxla mooy waa Hann donc merci aux populations de Hann merci merci aux responsables de Hann may nuyu imam yi di nuyu délégué de quartier yi di nuyu président comité électoral bi Mansour Tambédou un homme humble un homme sérieux xam naa ko yàgg na bi ma koy njëkk a gis maa ngi ko fekk Senepesca loolu yàgg na ginnaaw gi mu nekk meeru Hann ma am nag lu ma ci wax loo xam ne xëy na bëggul ma génnee ko ni Hann bindoo de Colobane ba Dalifort Mansour Tambédou moo ko def avec l'aide de di Diop loolu moo tax ngeen une commune diversifiée mais aussi une commune riche loolu Anne le doit à Mansour Tambédou et nous sommes fiers njabootu président bi fi nekk mu ouflen leen je veux citer l'honorable député Fat Diouf l'honorable député Fat Diouf ak sama xarit l'honorable député Mousli Diakhaté sama xarit la yàgg na ñu ngi waxtaan ci lu bëree baree bëri tout comme Fat Diouf ñu jàppante pour défendre pour soutenir la vision du président Macky Sall ànd nag bu ñu fi ñëwee wax ci président Macky Sall wax ci plan Sénégal émergent parce que dafa mel ni ci loolu lañ ma invité dafay yomb Hann dafa am particularité am village am ay entreprise am aussi extension ci des couches moyennes bu ngeen xoolee fii seen ginnaaw vous voyez ce qu'on a toujours appelé la route de Rufisque alors je peux vous annoncer que président Macky Sall tali bi dinañ ko def deux fois deux voies parce que tali bi tali bi tali bi moom ci la Dakar di nooyee nooyee waxuma leen président dafa leen koy dig de déedéet am na lu am na lu mu ko defee ba pare bi ñu demee pare ànd naa leen xaalis bi mu ngi fii deux fois deux voies bu ngeen xoolee li fiy jaar ci camion jógee ci poor bi quatre vingt pour cent de liy dugg Sénégal di jaar ci poor bi xam ngeen ni tali bi tali bu ñu war a defar la ñu commencer par le TER parce que nag mënuñu defandoo lépp en même temps après bi mu defaree autoroute bi TER bi andil leen ay jafe-jafe c'est vrai parce que circulation bi xat na ci boor yi mais li ma leen mën a wax tooguma benn conseil des ministres boo xam ni président bu ñuy wax ci TER bi day wax na gaaw mais fexe leen ba nit ñi bañ ci am benn coono ndax ñoom ñoo tax may def terre wi. naa leen aan dafa bari ay usines usines yu ëpp ci Sénégal ñu ngi nekk diggante Colobane ak Dalifort donc fii li président di def buñ ko mottalee Hann va devenir l'une des communes les plus riches déjà am ngeen ay usines ñu ngi fii bu ñu des désenclaver Hann par l'autoroute d'abord la route de Rufisque et le TER ici ay supermarché dinañ fi installé wu parce que boobu Hann day nekk ci xolu Ndakaaru dina yomb lool nga jógee plateau ñëw fii pour supermarché gis ngeen bu ngeen demee Europe supermarché yi nekkul ci biir dëkk bi dangay génn tuuti ànd mi ngi ci position boobu kon vous vous avez une richesse inouïe les jeunes ont posé le problème du stade c'est l'occasion pour moi de saluer le maire gis nga Parcelles Assainies bi ñu bëggee stade maire bi dañoo waxtaan ak moom mu ñëw jàpp ni li président Macky Sall def moom moo gën ñu ànd ñu ànd tey jii Parcelles Assainies am na stade Yoff am na ko Ngor am na terrain Hann dina ko am mais la koy yombal la koy yombal il faut que le maire rejoigne le camp de la vérité c'est un homme sérieux c'est un homme équilibré ci famille bu baax la jógee baayam bu góor pa waay juram ñëpp xam nañ li mu liggéey ci Sénégal muy feu Alioune Badara Mbengue na ñëw pour l'intérêt de Hann na ñëw ñu jàppalante gouvernement comme municipalité ñu ànd pour accélérer le processus d'émergence de Hann